abu moom ci suba bi 9h26 maa ngi koy wax dugal na chapeau ma gis mu dugal chapeau rek may doog a yeew noonu ñëw bureau ma woo ko téléphone di ko tooñ nankaan gëm service yeewaguñu sax nga ñuy balancer ay chapeau mu ne ma bàyyi ma man damay liggéey affaire yooyu noonu mu ne ko yow moom job rek ngay def ñuy tooñante daal fàtte naa sax luñ mujjee wax bi ma wàccee si suuf noonu toog rek brusquement si la ma ko càlla wax après ñu génn laajte ci lo nañu gaañu nañ ñoom ñëpp mais gëw ma ko ba tey après fekk sama benn concert lii saa mu ne moo leen woo wax leen ko ma ne loolu du dëgg ba tey man jàpp naa ne dañuy xëm wala dara affaire yooyu noonu après bi ma gisee oto bi nag si laa xam ne fii nit mënu fee dund rek si lañ commencé yuuxu mu yuuxu naan yoro sama xarit bi affaire yooyu noonu bureau ba góor jigéen ñëpp ñëpp directeur gardien ñëpp di jooy noonu daal lañ ko dundee mu nekk vraiment lu metti torop torop. seen taxawaay liggéey bi foofu mhm. gënoon a euh, am pas-pas ci liggéey bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu doon soññ yoro day ànd ak yow mu ne moom mooy journaliste abu du la bàyyi nga nooy abu du chapeau mu bëgg chapeau laa ko tuddee du zoom lépp la ñuy xëccoo ak moom du la bàyyi nga nooy abu abu dafa nekk koo xamante ne bu muy dem sax caala mu ngi koy wax suñu kii ne abu bu mu dem ndax abu bu demee journal bi du dem affaire yooyu mu ne mu ngi dem waaye à distance dina liggéey te loolu fësal na ko ba niñ leen ko waxee ni muy demee mu ngi dugal chapeau mag lépp mu ngi koy def mhm. sama position lenn la si ni ko ñëpp waxee laa koy waxee parce que loolu tam c'est tout à fait normal bu ñu nekkee ñoo xamante ne dañ doon dem ànd ak président loolu dal leen fa lu yoon la ñu def ko bu nekkee ñoo xamante ne aussi dañu jógoon ngir ut information askan bi jàppale leen ku si nekk ba ngay dem bàyyi nga soxla bàyyi nga famille Ousmane doomam dafa feebar ñu war ko si jàppale mu war a def opération papaam bi mu ñëw aussi mu ngi ñëw yaayam dafa feebar loolu yëpp ñu war leen see jàppale euh, mu nekk soutien boo xamante ne war nañ leen ko mën a def gunge seen famille parce que ñoom ñëpp ku ci nekk ni moo la ko waxee muy yoro yoro moo desoon taawu yaayam Ousmane soutien de famille la abu moom waxaalewuñu ko ñoom ñëpp dañu nekkoon ñoo xamante ne yoro bu fayee ko salaire am bugg ci dara lépp lay jël day xëy suba ne la jëndal ma ndékki mu ne ko yoro xanaa fayee koo démb mu ne bëgguma dara dara dara si lu may liggéey yaayam lay xalaat yaayam lay jël xaalis bi yóbbu envoyé ko ba yoonam bu mujj si question maa ngi ko naan yore yaa ngi dem tournée mais gis nga seen waa mu ne ma sama yaay dama ko woo mu ñëw si garage bi ma kott ko affaire yooyu li ma yoroon yëpp moom laa ko jox mu nekk journée bi mu àndee ak Zahra Iyane Thiam mu nekk lu triste vraiment. tey ñoom duñu dem ndax ay xale lañ yoo xam ne tey toute la presse sénégalaise dafa am dañu war am fierté ci ñoom

joxe l'information joxe la bonne information ils sont des modèles pour tout le peuple sénégalais ay martyrs lañ ay héros lañ ñi ngi famille di leen wax ne gannaaw bi li ñu sunu borom may leen xolu muñ nañu fier ci